subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant di gërëm di ñaanal sunu wasila cheikh bu Mouhamad Kunta yal na ko yàlla gërëm te yàlla yeesal yërmande ak njégal ci moom akum njabootam ñu ñëwaat fii nga xamante ni mooy télé bi nga xam ne mooy Ndiassane TV ñëw ci beneen mbir moo xamante ni mooy mbir mi ñu janool muy jaayonte ak boroom Ndiassane boobaak léegi eh, am na ay fan sëriñ bi wooñu bi ñu sàkkoon ndigal ci moom mu wooñu ay fan jël liggéey bi teg ko ci sunu loxo ngir ni nañu ko liggéey mm. liggéey bi nag liggéeyu ñëpp la jaayante ak maam Cheikh bu Mouhamad Kunta lañ ci wax kon jaayante lañ ci wax nag ñu ngi ñaan ñëpp daal di ciy jàpp ñu ngi ñaan àdduna bi ak diaspora bi ak ñëpp daal mën a jàpp ci lii nga xamante ni liggéeyu borom Ndiassane la te sëriñ bi teg ko ci suñu loxo muy Cheikh al Bekaay ibnu Cheikh al Bekaay ibnu maam Cheikh bu Mouhamad Kunta mbir mi nag ci ñetti mbir la war a rulle bi njëkk. muy université boo xamante ni université Cheikh bu Mouhamad Kunta lay tudd ak beneen mbir moo xamante ni ku wax njàng di nga wax faju te bala ngaa jàng for force faawu nga faju benn hôpital boo xamante ni hôpital bi ñu ngi ko war a duppee maama Koddu Diop di yaayu maam Cheikh bu Mouhamad Kunta borom Ndiassane ak beneen mbir moo xamante ni mooy wàllu assainissement wu Ndiassane ak beneen mbir moo xamante ni forage la boo xamante ne fële si siyaan yi fa doj ba euh, tojee woon foofu la sëriñ bi wax nee nañ ko ko defal ngir mu doon dimbalewaat Lac de bi nga xam ne dugg na fii si Ndiassane kon ak bibliothèque boo xamante ni bibliothèque El Kounti lay tudd waaye si njabootu Cheikh bu Mouhamad Kounta lañ ko war a tuddee loolu it sëriñ bi joxaguñu tur wa waaye si moom lay jóge waaye tur yi nga xamante ni moom wax nañu ko jaayonte ak borom Ndiassane si la fas yéenee taxaw te ñaan nañu yàlla inchaa allahu rabbi balaa déwén si waxtu wi bu ñu ñëwaatee dañ leen di won tàmbalema bi wala ye fa ñu toll waaye ñaanuñu yàlla mukk déwén si waxtu yi ñu naan ñu ngi ci jaayonte bi déedéet bu ngeen ñëwee bu ñu ñëwee dañuy wane preuve ci loolu la ñuy taxaw di woow mbokki àdduna di woowaa France di woo waa Belgique di woo waa Amérique Angleterre Allemagne siwis di ñaan di woo euh, euh, sous région bi Gambie Mali Burkina Côte d'Ivoire Bénin Guinée Mauritanie ñëpp daal képp kuy julit di wax wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te nga yaakaar yàlla ñu ngi lay woo rawatina nag njabootu cheikh bu Mouhamed Kunta yi nga xamante ni seen maam ak seen i baay yaakaaruñu woon kudul Kunta kon liggéey bi seen liggéey la ñu ngi tàllal ñëpp loxo e bu ñu xoolee dinañu ñu e, écran bi si bi muy daw ci Ndiassane TV e, numéro compte bi ak numéro VF bi Serigne Amsa Kunta mooy secrétaire bi dina si ñëw àggale ko. alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñaanal xalifatul am di tariqati al qadriya fadilati cheikh al bekkaay ibnu cheikh al bekkaay ibnu cheikh abi muhammad ibnu cheikh abi naamat al kunti yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér mu yàgg a jiite njaboot gi ci nii mu leen di jiite tabaarakallahu comme ni ko cheikh bekkaay waxee rek mi nga xam ne mooy coordonnateur fa tabaarakallahu noonu la jaayante ak borom Ndiassane yitteem du lenn lu dul delloo njëkkal ngir cheikh bu muhammad kunta ridwanullahi alayhi defal nanu lu ne kon ñu ñun itam war nañ koo delloo njukkal ngir lan ñu am yu ñu ko taxawalal ci dëkkam bi ni ko Cheikh Albekaay waxee te lépp génnul lu dul luy taaral dëkk bi luy taaral diine ji luy taaral tariqa bi tabarakallahu pour dugg ci jaayante gi 2500 la ci ngay adhéré ci li nga xam ni mooy kude kuréelu jaayante ak borom Ndiassane 2500 la ci ngay amee sa carte de membre boo ca jugee euh, dinañu am sa tur am sa sant am sa adresse am sa coordonnées yëpp buñ ca jugee weer wu dee wu ne liñ la sas mooy ñaari téeméeri dërëm muy mille francs weer wu nekk mille francs pour yombal ko am na amagum na compte Orange Money amagum na compte aussi Wave am na it code yoo xam ni ñi ngi koy lijjanti ci opérateurs yi nga xam ne ñi ngi fi signe nañu ak ñoom contrat incha allahu rabbi fii ak fan yu néew wala waxtu yu néew dinañ leen ko communiquer pour dugg ci numéro yooyu yaa ngi def 77 722 78 59 mooy numéro Orange Money bi moom aussi mooy numéro Wave bi pour ñi nga xam ni dañoo nekk bitim réew war a bëgg a def virement bancaire compte bi ñi ngi ko ubbi ci banque islamique bu Sénégal ku ci bëgg a dugg numéro bi mi ngi nekk SN 079 34 10 12 51 12 65 73 00 01 point 36. bu dee ñi nga xam ni tam ñoo nekk bitim réew ba tey code SIFT bi mi ngi nekk I 2S N S N D A. képp ku bëgg nag information pour loo xam ni bëgg nga ko leerlu mën ngaa woote ci ñaari numéro yi benn bi mooy 77 535 08. 42 beneen numéro bi mooy 76 887 07 59 kon lii mooy jaayante ak borom Ndiassane ñu ciy woo jullitu yàlla yépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah subhaanallah walhamdulillah la ilaha illallah